jërëjëf mbokk yi dañ leen nuyu di leen ziar di leen balwaq di leen xamal rek yéen a ngi ba tey ci seen site bu mag boobu di senego point comme dama wax mooy le premier site d' boo xam ne mu ngi fii ci réew mi di doxal ngir doomi réew mi ni ma koy faral di waxee rek ne ak Senego Sénégal tey dem tey nag ñu daje mbër moo xam ni defe naa ne wane na ay preuve am ci làmb ci wolof dafa ni doomi mbër jàngil bëre yàgg-yàgg des ndax kat mbër du laloo day màgg daan di koo xam ni li Balla Gaye di faral di wax naan xaalisu ngër lañ xaalisu mbër lañ ma ngénte moom it tamit bu ko neexee ne xaalisu mbër lañu ko ngénte hmm. xale bu def ay preuve ci làmb ji à travers son savoir-faire mën a bàkku mën a fecc mën a bëri mën a xeex te bëri technique du ma leen wax mooy kan la suspense lay doon ñu seetaan élément bi di dellu ku ci ne da ngaa dem. ndeysaan ñu ngi Leewtoo daw nañu daje alaaji attention daw nañu daje. daw nañu daje. booy bawol jàpp jën jàpp na. daw ngi xeex. daw nañu daje. daje booy bawol jën kayre. booy bawol jën. booy bawol jën kayre. ndeysaan ñu ngi Leewtoo bawol jën. jën gëdd na mel kuy dem ndeysaan Diène Kaïré Boy Baol ñu ngi lewtoo ñoom ñaar ñu ngi lewtoo ndeysaan ñu ngi lewtoo ñoom ñaar dix minutes de combat Boy Baol Diène Boy Baol Diène attention Diène daw nañu daje attention Boy Baol hop là daw nañu daje Diène dugal day percute combat dafa mel ni Diène jàng rek ci lu bari waaye booy bawol li mu bëgg mooy jàpp bëre ndax Diène dina ko ko may. Diène a ngi rakkos Diène a ngi door dindi na loxo bi. dindi na loxo ba. ndeysaan booy bawol. dindi na ko booy bawol daanu na Diène daan na ko. mbokk yi comme noonu ñu ko gisee rek ñu di ko faral di dàkkante naan ko lakkantaan de l'arène. kooku mooy kan Diène Kaïré Diène ñoo ngi leen nuyu. waaw père xam nga maa ngi leen di fay di lu invitation bi di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu ak jëm ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan eh, xanaa rek dañuy song rek say combat ndax Diène mën nañu wax ni sa sorte yu mujj yi amul benn sorte bu ci yomb. ndax jëlal sa diggante booy bool comme ni ko seetaanee léegi. am na bëre am na xeex ñu delluwaat ci gannaaw. sa diggante ki xam ni moom mooy Konia di combat bu metti boo jëlaatee benn combat di sa diggante ak Pambay est-ce que léeg-léeg gisuñu que Diène li muy jël ci risque dafa xaw a bari. waaw xam nga dëgg la mais c'est que ñun gars yi dañ tàmm di ñu jiij benn affaire quoi comme boo nekkee doomu mbër ni dañ la naan yow dañ lay wutal yoon xam nga loolu ñu ko waral dégg ba léegi nii sax am na ñoo xam ne ba léegi dañuy siis loolu la ñuy wax booy bi dañ koy tànnal yoon nag xam nga bëree gu fi fii mais pour éviter loolu ak sama staff waaw xam nga. dañuy jël ay kay combat risque quoi te man man sama wàll boobu bugguma combat bu yomb. bugguma ko am dama koy jël ñu naan jéenay favori wala yooyu quoi. Hmm. mais mais Diène tey est-ce que gisoo ni ñetti combat yëpp nga tegale. Hmm. tey boo ci faqas la ci benn tey ce que amul lu mën a yàq ci waaw si wax dëgg yàlla ndax làmb moom toll nañ foo xam ne moom defet moom xam nga mbër bu ne xam nga dalay wàññi quoi boo daanee di nga yokk mais boo daanoo xam nga dina am benn retard bu muy. def ci yow mais ñun daal xam nga ñu ngi entraîné te gëm nañ suñu bopp quoi waaw te gëm naa ne te mën naa ne fi ma yegg ni combat risque yooyu moo fi moo fi yegg si moo tax am na samay morom yu bëri ñoo départandoo xam nga kàttanu yàlla tamit xam nga ma raw leen ngir ay combat risque yi may jël. mais jël sa euh, combat yooyu booy bool. da nga ñëw hmm. indil ko seytaane. ndax dañu gis jeen combat bi bëri taxaw xaar déglu. nga indi bëri mu bëri nga indi xeex sax mu indi bëri waaye keroog jéel gis nañ indi bëri xeex ci xeex bi la gënoon misé dañu ne booy bool da war a xeex ak moom. waaw parce que man xam nga rek mën naa ne ay expert ñoom moo quoi comme sama papa sama père la liggéey samay entraîneur sama tamit ñoom chaque fois combat ñooy taxaw étudier adversaire bi ne ma kii nii nii ak nii ak nii nga war a bëre ak moom waaw ñoo ma conseillé loolu moo tax ma indi loolu combat bu nekk daal ni ñu koy ni ñu ñëwee quoi. mais Diène ba tey mu ngi ci làmb ci yaa ngi gis say morom yoon bi ñu jël ñu ci bëri bëgg daje ak yow est-ce que da leen ubbil yoon wala Diène a ngi fi taxaw di xaar pour wutal boppam yoon boppam waaw man mën naa ne sama man sama yoon bopp daal laa nekk di doon waaw maa ngi bëre xam nga def naa samay preuve am naa lu ma jot a def mais xam nga li des moo moo moo gën a bëri quoi. li des moo gën a bëri parce que Diène fi mu visé war na war na gën a mën a sori. en tant que en tant que doomu mbër. mais Diène saison bi euh, tëj na. xam naa ne ci fan ci incha allah fii ci kanam tuuti saison dina ubbiwaat. day continuer na wala Diène day deltu gannaaw may wan ndax dafa mel ni ñett ñoo ñëpp nga daan di ay ténor. ku ci nekk defet bu mu jëlee sa diggante ak yow métti na ko trop. ku ci mel ni Pambay defet boobu ba tey mënu ko ku ci mel ni Koña aussi mu ngi jël beneen voie pour yéeg parce que defet boobu gàkk-gàkk lay doon ci moom. est que wàññeeku waat mayaat leen chance wala da ngay viser sa moroom yi ci kaw. parce que ñetti affiche yëpp affiche bu ci nekk buñ ko dàbbal woon du ko yàq bés bu rëy lay doon. <laughs> non instant yi moom wax dëgg yàlla si kanam laa gën a xool ko yow kenn instant moom lu ma gars yi xam nga lu ma gars yi tàllalee loxo ba may ba ma yegg ba ma yegg moom laa bëgg quoi mais pas ay ay gees tollaguma fu may mayee kenn revanche. Mhm. waaw ñoom daan naa leen ay champion lañ tamit. muy booy boobu ak koña boo gisee ñu ngi def ay preuve. waaw ba ma leen ba ma leen daanee ba tey ñu ngi def ay preuve ñu ngi bëree di daan daan nañ ci ay combat yu bari te ñooñu xam naa ne ñoom tamit nañ xool seen yoon rek. waaw mais waaye ñoom yàgg yàgg la dabi. ah moom noonu la ndax mbër moom ku la daan moom mhm. saa yoo tëddee yaa ngi xalaat foofa fayoo mhm. waaw man noonu laa mel ak keneen ak noonu laa xam naa noonu la keneen mel tamit. ba tax na yaa ngi leen bàyyi xel. non instant yii ñu ci kanam laay bàyyi xel. mais mais ñële ñoom waaw ñële moom xam nga. Euh, jën doomi mbër. Mhm. est-ce que doomi mbër laa rek doy na ci bëri wala doomi mbër dafa war a jàngi bëri ndax wolof di ma ko waxee sànq dafa ni doomi mbër jàngil bëri ndax yàgg-yàgg dees na la ñoom. Mhm. ce que Boy Kayra mooy suma baay est-ce que amul benn influence bu mu lay bu muy def ci làmb ji ba maanaam ba tax ñëpp bëgg a dajeeg yow pour wane ñoom seen bopp ci yow. waaw si dëgg la parce que doo mbër benn instant avantage benn benn côté tamit xam nga hmm, metti na. lan mooy avantage waaw avantage mooy xam nga saa yoo dugg see rek bu ñu nee doomu diw loolu dina tax nit ñi gaaw la xam waaw sa sa génn mën naa ne boo boo góorgóorloo tuuti rek sa génne dina gaaw mais au contraire sa benn combat du yomb tamit parce que kuy bëri yow danaan doom mbër laay bëreel xam nga ay mbokkam dañuy jóg combat bi du yomb xam nga Sénégal waaw ku nekk daal loo am da nga ngir doomu diw laay bëri loolu rek xëy na moo leen di xam nga waaw mais xam nga du dara ñun dañ di jàng bëri dem nañ mbapat dem nañ équipe nationale Gréco waaw nañ box box asfa tamit xam nga fu ne daal jaar nañ fa ngir tar rek mais nekkul ne ay doomu diw laa rek boo ñëwee boo ñëwee tamit da fekk ñeneen ñu liggéey taxaw waaw. mais doomi mbër daal doomi mbër daal daje nga fekk doomi mhm. dafa mel ni ñaari doomi mbër maanaam ñaari doomi gaynde yi dajale. ndax keroog bëri ngeen lu lu mhm. ba mujj gi buntu feeñ nga am ndam ci kawam. Mhm. donc doomu mbër doomu mbër ji est-ce que keroog bi ngay defee sax yóbbaale maanaam da yóbbaale woon ne que doomu mbër nii yow ngay dajal. si waaw dëgg la parce que jour am ñuy bëri si jour bu mag. mooy ama guy bu njëkk ba. Mhm. waaw ñoo ñoo ñoo bëri deuxième combat xam nga waaw combat bi tamit xam nga rëyoon na parce que dañ ne ñaari doom parce que dama def ay preuve moom da mu ma xool mu ngi tegle quatre victoire xam nga. ñëw ñu ne xam nga ñaar ñi ñaar ñi foog kenn dem kenn toog xam nga gars yi wax expliqué xam nga après léegi ñu ne waa bismillah nañ ko jëm ñu def ko combat doomu mbër tamit mu doon combat bu neex mu teg si bakkenam man tamit ma teg sama bakken waaye waaye métti waaw bii métti woon na trop préparation yeeg <laughs> jour combat beeg bëre bi lépp a métti parce que waaw xam nga rek ku ci nekk da nga ànd sa papa ñëw taxaw yàlla nag moo ñu dimbali may ñu lool mais jën booy bëre amul benn combat Diène bu yomb ci moom daanaka say combat boobu sa papa di la ci hmm. la ci lu yokk ci yow la wala luy waaw xam nga bu duñ toll ni moom wax dëgg yàlla miin miin naa ko léegi commencement bi la ma doon xaw a réeral su ma waaw non su ma gisee mu mel noonu rek daf may dépassé quoi dama naan kii moo ma entraîné moo ma indi xam na ma bu baax a baax mais ñëw ba fii xam nga di tiit ak di waaw di dootu bokk ak yooyu mais après da nga koy comprendre. mais est-ce bi moom wax dëgg yàlla loolu daf may gën a yokk. waaw bu njëkk moom daan na ma wàññi. mais ban bés nga rappelé woon que pression ba juum sama premier combat. sama ka Ibulaay. premier combat dama ko ñàkk. Mm. premier combat mu ngi nekk le 9 juillet 2011. Mm. ci laa bëri sama premier combat daal. mu diis trop nag mu ñëw xam nga xam rek public beeg yooyu waaw jur sa doom mu nekk xale eh, première fois quoi waaw nga maanaam nga indi ko ci làmb te daan mbër xam na ni làmb bindoo ni làmb bindoo pression mais mais ba tey booy kër miisagul loolu ba tey waaw mën nga ko mis mais ba tey ba léegi moom man après sax laay gis xam nga mm, boobu xam nga boobu maa ngi si géew bi di bëri xam nga si nga gis yi muy def ak yooyu mais après xam nga rek mm. da xam ne émotion bi mooy demee noonu quoi Diène mm-hmm. Kaïré biir Médina mm-hmm. ku ne xam ne ni Diène Médina la am mm-hmm. waa Medina jën la ñu am. te Medina aussi tamit gis ni mu ci ay champion la mu nga fa. Mhm. Maodo mu mhm. yeneen mbër. que tey Medina xawul ci jën kër tuuti pratiquement euh, par rapport ak masse populaire bi am. non même pas de Medina wax dëgg yàlla foo xam ne fa nga juddoo fa nga yaroo xam nga màggee fa foofu wax dëgg yàlla même lu mu lu mu mënti xat xat xat tamit xam nga ñoom ngay représenté. waaw man xam nga ak bu fa mbëri Sénégal yi nekkoon tamit xam nga dama fa am wàll fa laa juddoo waaw. mais yow mbër yu mag ki foofu. Mhm. am ngeen benn affinité bu ngeen di dund ay doomu Médina. ah waaw xam nga ñoom ay sunu ay idole lañ. naa ne xam nga ñoom li ñu bëgg ñu moom lañu bëgg. mais est-ce que am ngeen relation relation boo xam ne di ngeen ko dund ci làmb comme booy waaj ay bés wala nga war a bëri ji est-ce que nañ la jàppale ci ay conseils wala est-ce que nañ la jàppale par rapport. waaw si waaw wax dëgg yàlla fu ñu gisante moom dañuy ñëw conseiller ma muy Gris Bordeaux ak yeneen mbëri suñu ay père Rock Mbalax ak père Tafa Gueye xam nga ñeneen ak sama morom yi ay. ay ñoom gin wër mu ngi fa doomu peerkat yi mm, ñoom giri de waaw ñoo ñëpp xam nga fépp fu ñu daal dañuy waxtaan ci jàmm yéenente jàmm nuyoo quoi xam nga expliqué lañ seex mais est-ce que Diène Kairé bés ñaan na yàlla daje mbër a ngémboo Medina ah xam nga moom kenn xamul waaye man man moom bugguma ko quoi wax dëgg yàlla man bugguma ko promoteur bu ko tëgg ah bu ko si staff bi lay des rek mais parce que goo ma ne mbër bu dëkk Medina daal man dinaa bëri mais est yàq parce que docteur Alioune Sarr keroog mu ngi wax lu mel noonu. maanaam dawante boobu est-ce que amul réduction bu mu mën def ci làmb. non non parce que booy xool làmb ji yaatu na comme que ay ay Pikine ak boo demee ñu ji bëri xam nga du ñu bëri ak ñeneen ak ñeneen du ñu bëri seen biir kon xam nga te foofu moo ñu moo ñu ëpp ay mbër. waaw mais d'accord mais war na mën a dajale ñaari mbër. affiche boo xam ni ñëppay xam ni lii affiche la. te bu boobaa est mais booy xool ñun ñoo bokk ay supporters. boo xool ñu xam nga man mooy bëre ñi dëkk koñ bële dañ lay supporter ak yooyu xam nga te boo xam nga sensible na daal mais staff bi moom lu mu des de man moom pare na mais man xam nga. su ma sañoon daal xam nga làmb ji yaatul. Hmm. waaw boo sañoon daal bàyyi fi mu Nourou Medina. Nourou Medina waaw jën kay rek fan yële si ginnaaw am na déclaration bu la docteur Abdou moom mi yore CNG def. Hmm. maanaam fexe ba catégoriser làmb ji. Hmm. loolu yow tey en tant que lutteur est-ce que am na avantage ci yéen mooy fexe bu boole ñu tolloo ci ay kilos. est-ce que loolu du la maanaam amul lu mën a yàq ci la wala est-ce que yéen ñi féetee suuf di mën a yegg ci kaw. ah waaw xam nga loolu tamit moom xam nga dina yéeme parce que booy def say preuve tamit war a dajeeg ñi ci kaw ñooñ boo demee ñoo lay ëpp boo boo leen pesé mën nañ la gën a kii mais fekk ne xam nga loolu si yaram la rek wala ci yàq mais xam nga mun sañoon daal ñu bàyyi ku def sa preuve waaw war a bëreel daal ngeen bëri mais ay xool ñaar ñu tolloog yooyu xam nga mooy loolu daal. kon daal da gis ni que catégorie maanaam noonu ñuy catégoriser lamb ci baaxul ci yéen mbëru ndaw yi. waaw xam nga baaxul ci ñun baaxul ci ñoom. parce que ñun mbëri ndaw yi ñoo def suñu preuve fekk ji leen. Hmm. waaw te ñoom tam dañuy soxla booy yi di yéeg xam nga. pour ñu da ngeen bëgg a daje pour loolu la voilà ñun ñëpp lu xam nga loolu la ñuy rêvé mais boo demee ba ci biir bëgg def ay affaire xam nga mooy loolu la. kon daal yow àndoo ci xalaat boobu. non non. su ma sañoon daal xam nga ñu bàyyi noonu ñun ñu jaxasoo suñu biir ku mun sa morom duma. lu ngeen am jëm. waaw loolu daal moo moo ñuy gënal daal. Euh, Diène Kaïré. Hmm. Euh, combat waaw xam nañ ñi mbëri léegi moom koo ci ne koo soxla mooy la kuñ ma jox baax na. waaw mais dafa am affiche bu mhm. xale la. Mhm. yow xale nga. Mhm. juumoon na contre Zarko ñëwaat daan. ci saison bu neex est-ce que sa a neex. waaw xam nga man moom wax dëgg yàlla amul benn mbër buy taxaw ma ne soit maa la raw wala yooyu waaw mais muy Mame Balla. muy keneen ak keneen parce que moom tam ma def na ay ay preuve muy keneen ak keneen ku ma làmb boole laal ba staff bi nangu dañuy bëri. mais diggante Medina Medina ak ak Pikine loolu loolu loolu bés di ah, loolu moom ay ay dër bu yàgg la. kon daal ku la jox ku la jox avancement baal di ko jël. baal ak keneen ku mu munti doon nekkul ne xam nga maam mbër yaa ngi fi bëri nañ. daanaan la wax dëgg yàlla. waaw ah, mu daan la tamit ndaanaan la. non waxuma ndaanaan la xam nga bu ñu nee ndaanaan la ndaanaan la maanaam maanaam mbir du neex. tey ku ci mel ni tey Modou Anta. gis nga bërki Dembo Ndiaye. Mhm. li mu def caat. waaw loolu. loolu defe naa ni kenn waranteeti ko. gis nga fi mu jaar ak ñeneen ñoom Bathie Yaraas ak ñoom Balla Diouf ñoom. Mhm. mais kon yow boo bëggee jël risque boobu jël ci xale bu tuuti est-ce que jàppoon ni que Modou Anta mën na mën na la yemale foofu yoon yoon di yem foofu. comme li ngay doon doon bi doon lakkantaan. Mhm. Modou Anta lakkantaan bi yëg xam ne daje nga jàmbaar. <laughs> si waaw dëgg la champion la mais wax dëgg yàlla man moom mooy li la wax sànq rek combat bu jël dama bëgg ñu ne kii moo mën jéem. ah Modou Modou Anta moom déggu li ma. laa bëgg ku ko xam ne dama koy jël ñu ne kii moo mën jéem. combat bu daal laay war. kon sa digganteeg Modou Anta bés la. ah bés la moom bés du ko daal. waaye da ko xeeb. Modou Anta mooy non yow da nga xaw a minimiser. non non même pas Modou Anta xam nga champion la. xam nga moo moo moo ma njëkk bëri waaw moom xam nga moom njëkk bëri mais wax liggéey naa si si diggante bi xam nga ba mën naa ne kon daal gëm nga nekk fi liggéey nga lu war a mën a daan moo doonte si ak keneen ku dul moo doonte sax waaw liggéey nga lu ko war a mën a daan kon fi mu ne buñu leen ni woon jàppal ne la avancé moo doonte ngi di la gënal waaw buñ ma ko joxee staff bi nangu man pare na pour bëri jén est-ce toog ci télé ba gis gis naa wa champion la boo ko ëppul doole doo ko daan te te ni ma la gisee ëpp moo daan doole ndax moo daan te punkal la si waaw punkal la li mu bëree seetaan naa ko xam naa ko depuis premier ah, combat am ba léegi nag loolu la ko daane waaye mu daante du du ko xale di sànjaafu ah si mais xam nga rek bu combat bi taxawoon daal mm. si la wax ji di gën a neex te wax ji di gën a neex waaw mais instant moom xam nga doxuñu sunu combat xam nga doxaan champion mais say supporters ñu ngi coowaloo naan jéen nañ ko jox Zarko ci ñu naan jéen nañ ko jox Siteu ñu naan jéen nañ ko jox Baye Mandione xanaa nag sax peut-être que ñoom Zarko sax ñu mais dama defe ni jéen warta mën a repp sax bay maanaam bay lekk avance su bàyyi ma ñoom nag jéen nañu wax ci dëgg la oh si loolu moom non non jéen waroo jéen xool nga bàyyi ma ñoon <laughs> jéen bàyyi ma ñoon presque cent quarante kilos lay def ah non ah, loolu du ci dara maanaam damay dégg père Tafa Gueye di ko wax moom boo quatre-vingts rek boo ko amee war nga mën a bëreeg si yoon xam nga ah, ah, nu mu munti toll war nga jéen nag jéen nag jéen nag da ngaa dëgër fit non même pas xam nga day day dëgër fit sax xam nga yow bul ni bàyyi ma ñoon dafa nekk dafa nekk dafa nekk saako bi rek bàyyi ma ñoon maanaam maanaam non bàyyi ma ñoon champion la ah waaw mais ma ko dalee seetaan yi bëri naag paa bi waaw waaw xam nga maa ngi toog maa ngi doon xale bu ndaw waaw waaw léegi yow loo ci bëgg léegi bëri naag paa bi léegi yow da nga bëgg a fay bor bi non même pas mais xam daal garab la ci kaw lay fekkante bu ñu waree bëri gaa yi xam nga promoteur am na promoteur bu ko doxoon daaw mais xam nga mujjiwul sotti kon daal yow. mais moom moom bu nangoo ma man man pare naa pour. bëri gëm nga ne garab gi daal màgg na daal pour fekkente ak bàyyi ma ñoon ci kaw. si waaw si yoon waaw si moom lay des rek nag. mais jën bàyyi ma ñoon avancé bi yow boo la wis <laughs> ka non pas bëriwul na ak Baye Mandione si waaw laale na xam na wextaan nekk ci Baye Mandione xam na wextaan bi nekk ci daanu d'accord moom daanu daanu lay male hmm. njàmbaar lay indi ci lamb fit lay indi ci lamb ambion la jom lay indi ci eh, lamb day bëri day xeex te am na doole dëgg la waaw waaw donc man nag man ñooñu laay wër yow nga daan fi ñoom kooñaay yi sa morom yi xale yu tuuti yi rek waaw ah, mais noonu <laughs> ku da ngay da ngay rêvé kaw te ñoom moom moom période période bu muy bëre paa bi mooy comme ñu toll nii rek bi da ko tàllaloon loxo mu jóg waaw mais d'accord mais waaw moom war a war a war a mën a fay bor bi mais moom boobu ni mu tolloon ba dajeeg boykere yow tolloon si si ci poids la woon rek bi nii la woon rek kon daal yow revanche paa bi nga bëgg a jël jëluma revanche mais da nga fay bor bi. waaw parce que bu ñu làmb boole moom si moom la des. kon daal si sama biir di ñëw daal mën nañu wax ni que Diène Kaïré Baye Mandione daal di visé bu sañoon daje ak Baye Mandione. ndax teg nga fi Moussa Ndoye teg nga fi Zarko. non non déedéet déedéet teggi teggi ma kenn. nañ la jox daal Baye Mandione nga defal ko bagage teggi ma kenn wax dëgg yàlla ñi ngay wax ni ñëpp xam nga. teggi ma daal Baye Mandione nekkul question dama ko dama dama ko ciblé yow yaa ko tudd ne xam nga Baye ñoon bu leen gars yi boole woon expliqué man la man pare naa pour bëre mag ñëpp mais làmb ji dama toll foo xam ne amul benn mbër bu may taxaw di la xool naan la yow laa soxla wala lii ndax xam naa ne su ma su ma liggéeyee gëm sa bopp képp ku ku ma bëgg a bëreel dinaa moom si kàttan yàlla waaw maa ngi ci yoon maa ngi liggéey daal mais toogu ma naan mbër bi laa soxla wala wala di viser benn mbër. non mais jéem koo ci àdduna am na fu mu teg bëtam. si waaw fi ma teg bëtam mooy fi mbër yëpp fi mbër yëpp teg bëtam rek ci kaw. bu la neexee tey nii tey teg nga sax sa bët ci yëkki nii wala ci motuloo am nga ci droit. ndax fa la ñuy rêvé yegg waaw waaye danga ko bëgg a def étape par étape. waaw étape par étape mais man gëm naa ne ko man yéen bés boo duggee ci bés boo duggee ci Baye Mandione nag di nga teeral nag yéen. ah waaw baax na ba boobu euh, ba boobu. yàlla ah. baax na man en tout cas maay te xam nga gëm naa sama bopp. kon nag defe naa ni promoteur yéen a ko dégg. Mm-hmm. ki wax nii dama wax ni mooy doomi Boy Kéré ñu gën ko xamee ne lakkantaan de la mm-hmm. wax na ay ambition ci wàllu lamb waaye ni ngeen ko déggee. wolof danaan wax bu feebar it nopp yoo koy dégg wër su amoon bàyyi ma njoon mooy li ko gënal njoon garab ci kaw lay fekkante bëri nga ak booy kayre yàgg na waaye tey doomi kayre tey màgg na ndax bor bi la bëgg a fay bunt bi ci bàyyi ma njoon la am déet waa caaro yi may waa caaro yi dinañ ci joxe seen i xalaat ak seen i contribution Diène Kaïré gis nañu saison bi ñaari bu tëjee mbër yi du ñu benn activité hmm. est-ce que Diène Kaïré bokk na ci mbër yoo xam ne dañuy ñàkk activité bu saison bi tëjee non man moom mën naa ne activité yi may nekk bu saison ubbee ak buy buy lépp ci laay nekk muy entraînement kon amoo beneen métier à part non làmb rek laay def waaw hmm. ah, làmb rek bu saison bi tëjee dama ciy continuer nekk di xaar combat chaque fois daal maa ngi ci maa ngi liggéey di xaar combat. mais yéen bëri amu leen ci leneen lu ngeen di yëngatu comme ci wàllu agriculture si waaw maa ngi ci léeg-léeg xam nga ma dem dëkk ba xam nga ma dem dëkk ba damay bàyyi ci tool yi waaw damay dem dem dëkk ba bàyyi ci tool yi daal. ñëwaat mais saison ren bi ni mu tëjee nii lan nga ambition yi ndax boo xam ne seen morom yi leen saan ci làmb ji war a mën a xam ne que mbër yi du occupation làmb kese la ñu am mbër yi war nañu mën a am métier mbër yi war nañu mën a taxawal dara loo xamante ne que yeneen ni di seen rakk war nañ ci mën a jëriñu si waaw dëgg mooy comme loolu rek du ma dem dëkk ba ma man la hmm. may dem xam nga jàpp si tool yi bay dugub ak gerte pay bu affaire xawee ñor ma ñëw ñibbisi fan yi maa xam nga demoon na léegi maa ngi waajaat quoi. jërëjëf jërëjëf Kéré. jaajëf waaw rafet na. xam nga di profité di gërëm supporters yi. waaw képp ko xam ne yaa ngi bëggee jën daal maa lay nuyu xam nga di la sant di la gërëm di la wax ngeen yokk ñaani rek seen mbër mu ngi entraîné xam nga di mu ngi entraîné daal di daas di xaar. di <laughs> di xaar ñëpp. <laughs> di xaar mbër yëpp. non xaaral bàyyi ma ñëw nag. non <laughs> bàyyi ma xaar mbër yëpp rek. Ah, bàyyi ma xaar parce que fixé wu benn mbër xam nga wóorul te man fixé wu ma kenn xam nga waaw. léegi mbër yi ñu ngi fi ñi xam ne war nañ bëri bëri na. waaw léegi ko daal ko daal ma dugg la ci loowu loowu Lac Rose beeg Zarko daal ak euh, maanaam ak euh, ak bàyyi ma ñëw. ñoom waaw yow daal suñu père nga yow foo ma dugal baax na. <laughs> Euh, jërëjëf eh. mbokk yi kooku mooy seen doom seen rak seen xel Diène Kaïré mm. di jël tànkam teg ko fi ko bàyyam tegoon bàyyam dem na ba déggal l'empereur de l'arène moom itamit ñu di ko ñaaral mu dem ba dégg le roi des arènes ah. parce que bëri bi mu ngi ci moom jom ngi ci moom njàmbaar gaa ngi ci moom mën na xeex mën na bëre am na animation te doomi mbër la xanaa rek euh, di bégal mbokk yëpp di leen tàggu rek di leen wax ni que yéen a ngi seen site d'excellence le site le plus populaire du Sénégal di nuyu nag waa bitim réew ndax ñoom ñu ci bëri gis nañu li ñuy yónnee ci li nga xamante ne mooy site bi di senego point com di jiital waa Italie rawatina waa Bruxelles di ci boole waa Montréal di la wax ni que site bee ngi noonu Sénégal ko moom Sénégo la ñu wax ak Sénégo Sénégal. yee man de maa ngi ciy profité waale di nuyu waa bitim réew tamit ak sous région bi waa France xam nga France Italie Europe yëpp daal waa États-Unis tamit maa ngi leen nuyu di leen sant xam nga di leen gërëm. waaw di nuyu sous région bi ak ki bépp Sénégal bu nekk bitim réew daal ñi jiita tamit ñu leen ñaanal yàlla yërëm ne sama maam xam nga Abibulaay Jaw ba mu gaañoo yàggul yàlla na ko yàlla yërëm xaaral àjjana ak mboolem jullit yi mu fa fekk waaw di di sant ñëpp di di nuyu waa Sénégal bu baax nag yéen na site bi chaque jour ñu koy seetaan waaw Sénégal yëpp gis nañ seen bopp. gis seen bopp bu baax waaw. jërëjëf Diène Kairé